jaajëfatee jaajëfatee sama gars bo man Mr. Shake depuis Brooklyn euh, New York tay nak dama ñëw defal len une vidéo ci affaire Ngone Ndour ak aussi Sodav mais aussi wax ci Sonko Pastef Makissal Qui bi nga dafa bëgg Sonko Pastef ne Pastef dañ koy tas lu tax parce que ministre de l' intérieur Félix Diome Antoine Félix Diome moom moo génn mu ne Sonko nu muy utee xaalis du yoon ndax parti politique boo amee parti politique ñi la war a jox xaalis mooy ñi nga xam ne ay membre lañu maa xam ñi nga xam ne dañoo bokk si seen njaboot waa Pastef patriote yi rek ñoo war a jox Sonko xaalis waaye Sonko warul dem ci ay yeneen nit ñu koy jox xaalis wala ay lobby lu ci loolu nag ñu bugg a profité ci loolu ñu ne dañuy tas Pastef mais balaa may wax ci loolu nañu wax ci Ngóone Ndour ak Thione Seck ndax Thione Seck fan yi dañoo gis télévision bi ñuy wax Balago TV mu dalal ñu ay nit yu mel ne Pape Cheikh Pape Cheikh dalal ki ñuy wax si Diop ñooñu ñoo génn ñuy naqarlu mais ñoom daal li ñu wax li ñu wax mooy ne Ngóone Ndour dafa sàcc xaalisu artistes yi gars yi man ñëw ma fii pour faral Youssou Ndour wala pour faral Ngori Ndour wala pour faral Thione Seck damay nettali rek li nga xam ne Thione Seck moom la def ñu bëri nag teñ ne Thione Seck dafa soxor Youssou Ndour Thione Seck dafa iñaane na ndax Thione Seck yàgg na génn dal ci kaw Youssou Ndour yaa may dégg am na ñoo xam ne sax dañ ne Thione warul wax dara ndax yow ku mel ni Khadim Gueye benn euh, euh, youtubeur la moom dafa génn mu yàq Thione Seck lu ne xame nee na ko yow balaa ngay digle sangu da war a set ne ko yow ba tudd ba tudd ay faux billets wu Thione Seck waaye man dama daan gis dama romb gis Thione Seck di def ay mbir ci Sodav tuddee ko épisode un épisode deux defe naa sax am na épisode trois fan yëpp maa ngi koy gis mais musuma cliquer waaye nag ba ñu gisee ci 31 décembre Youssou Ndour daal di way bojo bojo xam nga Wally Seck way wayam boobu duma la may naada duma la may naada xam nga Faramareen dakaar ba ci yoonu Faramareen Dakar ba ci yoonu Mareen ci laa ne nag ah kon est-ce que Youssou Ndour dafay tontu Thione Seck loolu nag moo tax man ma dem ma dégluwaat Thione Seck ma xool ndax li muy wax am na wala amul ndax Ngone Ndour dafa jalgati ndax dafa jël xaalisu euh, Sodaaf ndax yëf yi lu tax mu garaaw gars yi mooy ne plainte daf ci am Ngone nduur ci boppam dafa porter plainte ku ñuy wax defe naa Abdoulaye la tudd Abdoulaye Guissé moom mooy président defe naa en tout cas moom mooy jiitu Omart ci ci ci euh, mbirum aar lay dox yéen may dégg léegi nag man comme man youtubeur laa youtubeur laa il faut que ma bañ a naafeq may wax ci lépp ndax Ousmane Sonko fii lañ ko fi ju jiiñ quatre-vingt-quatorze <coughs> yi ngeen baal ma Ousmane Sonko jiiñ nañ ko fi quatre-vingt-quatorze milliards Ousmane non non moom moo fi jiiñ Mamour Diallo quatre-vingt-quatorze kon nag bu ñu gisee beneen euh, kuréel bu ñu wax SODAV ñu ne lu mat cinq milliards sàcc nañ ko fa dañu yaakaaroon ne Ousmane Sonko dina ci wax wala Guy Marius dina ci wax wala Karim Xrum Xax dina ci wax wala euh, Wes Show dina ci wax parce que ñoom dañu génn ñu ne ñoom dañu ñëw pour waxal askan bi man nag maay Mister Shake man du ma ragal man lépp loo xam ne dafay gaañ askan bi dinaa ko wax bu fekkee ne li ñuy wax dëgg la ne nguuru dur dafa jël xaalis boo xam ne dafa am caisse noire maanaam téeméeri millions yoo xam ne ñeenti at a ngi koy jox téeméeri millions yoo xam ne moom moo ko moom

ñoom li ñu wax mooy ne Ngóor Ndour comme ni mu la ko waxee ah dafa am téeméeri million cent millions yoo xam ne moom moo ko moomal boppam xam nga euh, caisse noire lu ko neex la ciy def pare foofu ñu ne ñoom xaalis sodaab bi ñoom ñoo koy séddoo seen biir ndax sodaab demoon na ba am benn at def naa at bii passé euh, deux mille dix neuf waxuma deux mille vingt deux mille dix neuf amoon nañu budget ci xaalis jot nañu jëlal jël xaalis bu bu toll lu toll benn milliard ak juróom-ñetti téeméeri. Euh, million un milliard huit cent millions loo xam ne dañoo dem ñu fayeeku fayeeku ko artistes yi waaye ñoom juróom-ñetti téeméer millions yi ñoom dañ ko jël ñu ne dañ koo jaay ci lépp li nga xam ne moom mooy doxal nu mu tuddati SODAV loolu nag moo jaaxal ministre bi sax ba di ministre ministre de la culture ba mu ñëwee mu saytu leen mu ne leen mais yi ni ngeen di def nii sàcc la li ngeen di def nii détournement la looloo tax sax si li ñu wax ñoom Macky Sall ci benn conseil des ministres mu ne nañ ma defal auditu SODAV maanaam Ngone Ndour ak ñoom ñoom ñi nga xam ne ñoom nekk ci conseil d'administration bi ñi nga xam ne ñoo ñuy jiite SODAV dama bëgg xam ngeen wax ma nan la ñuy euh, doxalee euh, SODAV ndax li ñuy def jaar na yoon wala jaarul yoon. loolu loolu la Macky Sall wax loolu nag ba mu ko waxee Ngone Ndour ci boppam génn na mu weddi mu ne loolu amul mais Macky Sall bu demee ba ne seytu leen ma SODAV kon xëy na am na lu fi am. léegi nag dañoo léegi nag ñoom li ñu wax Thione Seck nee na Idrissa Diop ci boppam nee na gëj na fayeeku nee nañ Sodaar ba bañ bañ bañ ko euh, kiiwee ba léegi def na ñeenti at Papa Cheikh nee nañ ñaari at yu njëkk ya fayeeku ñu dara dara dara dara dara te BSDA bu njëkk ba dañ daan fayeeku juróom benn weer bu nekk waaye Ngone Ndour ba mu jëlee yëf yi ba léegi ak ñoom Ngone Ndour boog laay wax ñaari at a ngi nii fayeeku ñu dara loolu nag moo jaaxal nit ñi Thione Seck nag ñu bari ñu ngi koy di ko tuumaal di ko wax yaa def lii yaa def laa Xaadim Géey daf ko yekk lu ne xamee ne ko yow da ngaa iñaane yu funduur fii la la invité Bercy amuloo dara looy def nekk fa naan dangay ngay tari alxuraan yow yaa ngi ni sa loxo setul ci ci phobie yi waaye nag waaye nag ah lii moom Thione Seck ku ci wax lu bari di ko ci tooñ ndax ñoom Idrissa Diop ñoom ñoo ñëw ne ko grand dañoo bëgg nga jàpp ci komba bi man loolu maa ko déggal sama bopp dangeen di seetaan man seetaan na une heure Idrissa Diop ak Abdoulaye gisse bobu malay wax mi nga xamne mom moy Omar ñom Thione sek wax loowu leen ñom ñom ñëw ñu ne dañoo soxla Thione sek dañoo soxla Omar Pène dañoo soxla baba mal pour ñu ñëw wax ci Ngone Ndour ndax Ngone Ndour kenn du ko contrôler wa sodaf kenn du ko contrôler ofnak du len contrôler kenn du len contrôler lu len neex lañuy def ñent at ngi ni xaalis bi han dañu wax ne dañu sax amna na kër boo xam sax ñom dañ ko jël loué ko loué ko diko fay pour pour ñom mais lu ne daal wax nañ ko ba ngóol ci boppam daal di porte plainte daal di yóbbu kii ci yoon kon man damay nettali rek damay nettali mais bu fekkee ne li ñu wax dëgg la ne ne ñoom ministre bi ci boppam ministre de la culture ci boppam dafa ñëw mu dal leen mu ne leen li ngeen di def sàcc la détournement la kon war nañ ko xoolaat ñoom Ousmane Sonko ñëpp war nañ ci wax man foofu laay waxee coon sekk nag li tax mu tudd Youssou Ndour nee na Youssou Ndour moom moo dem ci Macky Sall mu fexe ba ay nitam yu mel ne ay munirus si ay nit yoo xam ne fekkee mati bu wala lañ bokkoon moo fexe ba mu teg leen fa Macky Sall jëlal ma samay nit nga tegal ma fa nit yooyu nag moom moo leen di wax def leen nii jëleen leen xaalis bi jël leen xaalis bi ba mu waxee munu si dama bëgg nga nga nga jël xaalis bu bari pour pour aakimoo ko munuri si dafa bañ loolu ñoom ñëpp wax nañ ko mais ñoom Thione daal li ñu wax nee nañu daal aar bi daal ñoom Youssou Ndour ñoo ko benn famille la ñoom ñoo ko aakimoo presque aar mooy fayeeku ah, ak ñom Youssou Ndour ñi leen neex rek ñoy fayeku même xaliss corona bi ba mu ñëwee Macky Sall jox fi presque 3 milliards Papi Cheikh nee na ba mu demee 100000 francs ñaar fukk junne la ak lu topp tuuti lañ ko bëgg jox mu neela baal na la ko sarax na leen ko même xaliss bi Macky Sall joxe 2 milliards 500 bo moytu moytul noonu lay démé ñu né dañoo yok artistes yi waaw ndax artistes bu ñëk ba dañ ñëwon juroom ñetti junni juróom benni junni artiste rek la wala juróom ñaari junni waaye ba ba séddale bi jotee ñoom lañ ci yokkaat yeneen ñeenti junni muy onze mille artistes xaalis boobu ñoom ñu aatimoo ko mais daal ñoom daal ñu li ñu joxañ baaraamu tuuma bu ñu tuuma bu ñu joxal Ngoné Ndour dafa doy waar lool lool lool gis nañ ci nag Ngoné Ndour fan yii mu woo artistes yi di wax day xeex ak artistes yi day da leen di yóbbu ñuy def marche def sit-in ba Youssou Ndour sax noonu la ci dugalee baatam ba Macky Sall joxe ñaari milliards ak ak juróom Euh, euh, téeméeri euh, million waaye loolu est-ce que yu Ngoné Ndour def ko nii rek pour saalaan ndax yow bu fekkee da nga war a jàppale artistes yi si ñoom ñële daal li ñuy wax mooy fayal artistes yi fay leen seen xaalis bàyyi leen xaalis bi ngeen di argument léegi Macky Sall est-ce que moom dina def dëgg liggéeyam parce que ba mu waxee audit def na def audit man duma ma blâmer Ngoné Ndour du ma blâmer waa Soda parce que aw ma épreuve waaye Macky Sall ci boppam mooy président boo xam ne bu fekkee ne nag entreprise Sénégal yëpp nii la ñuy doxalee Sénégal lu mës a dem lii boo koy seetaan sa xol day jeex da ngay bëgg jooy sax bu fekkee ne nag Sodav nii lay def ah di jël xaalis boo xam ne dañ ko war a jox artistes ñoom ñu aakimoo ko Sénélec def ko yeneen entreprise def ko présidence def ko Macky Sall def ko li moo tax Sénégal du dem li moo tax suñu xale yi di jël bateau yi di dem bu ñu jógee foofu nañu wax ci Sonko léegi nag Sonko moom moo fi nekk di leen joxoñ baaramu tuuma di leen di xeex ak ñoom moo tax nag ñu bëgg tas Pastef di amuñu benn buntu buntu bu ñu bëgg a jaar nag mooy ne Sonko dafa am ay lobby dafa am ay nit yoo xam ne ñoo ko war a jox xaalis waruñu ko jox xaalis moo tax ñu bëgg ci profité di ko tas mais ñun leen di wax rek mooy dañuy sonna seen bopp parce que mënu ko tas Sonko mënu leen ci moom dara dara dara ñun ñi nga xam ne ñun ay patriote man maay njaagu Sonko ñun dinañu jël suñu xaalis di ko jox Pastef te incha allah 2024 Macky Sall du am troisième mandat ñun loolu moo ci mooy suñu xeex waaye nag. waaye nag xeex moom buy buy commencé ah ragal amul bu fekkee ne Ngone nduur ñoom Ngone nduur li ñu def nii jaarul yoon man waxuma ne jaar na yoon wala jaarul yoon mais dañ war nañ ko saytu ñoom Ousmane Sonko lu tax ñu ñuy ñuy tànn yenn combat rek gris ma Guy Marius Sagna lu tax ñu yeb Mamour Diallo lu tax ñu yeb ñeneen ni ah ay ay euh, euh, Mame Mbaye Niang lu tax ñu yeb leen mais lu tax Ngone nduur bu ñuy wala rakk Youssou Ndour ñu tudd ko ci lu tax waruñu soytu dañ dañoo ragal famille Youssou nduur wala la bu dee way la Youssou Ndour kenn dàq ko waaye bu fokkee ne nag li ñuy wax dëgg la ne famille Ndour dañoo bëgg aakimoo alalu réew mi ah kon Sénégal ñun war nañ jógaat suñu bopp waaye fi mu nekk ku ku wax Youssou Ndour ñu génn saaga la ay saaga yu tooy kap ma gis Xaadim Géey jàpp Thione Seck yàq ko lu ne xamee Thione Seck ba mu tak ba mu bañ ko takkalee ci ci ci phobie yi man dama ci génn ma wax ma ne ah doy na waar Thione Seck war na expliquer boppam mais yóbbu nañ ko yoon tëdd na lu muy tëdd kon Son Seck amu leen dara leen koy wax ndax jugé nañ ko tëj nañ ko kon moom moom def naa naag deful mais moom sax jot nañ ko tëj jot nañ ko soytu kon lii tamit bàyyi leen Thione sekk bi ngeen jàpp di ko xas du Thione Seck Pape Pape Cheikh la Idrissa joob la ñoom mam góor Zaka la ñoom ñëpp yàgg nañu génn di kaas képp kuy artiste génn nga kaas joxe ñoroo dara voilà ñun daal foofu la ñu waxee Ousmane Sonko nag ñu ngi koy xaar ci combat bi bu bëggee ñu xeexal ko tamit ci Pastef bi parce que ñun dinañ ko xeexal Macky Sall du ko laal moom Macky day wax rek sañul laal ko ñun foofu la ñu waxee mais jaajëf gaa yi man la Mister Shake maa ngi leen di ngeen ngeen like ngeen partagé waxuñu nag ne Ngoné Ndour dafa jël waxuñu ne Youssou Ndour dafa takk waaye nag dañu coow li bu commencé bëri laaj na ñu génn ñu ñu wax ci mais ñu mel ne ay Xaadim Gueye di di saaga Thione Seck di ko xas ah te waxuloo dara ci ci ci ñeneen ñi ni ñu wax Abdoulaye gisee lu mu wax Idrissa Diop li mu wax